wa ma adraka ma alqaari'a yawma yakunu annaasu kalfaraashi almabthuuth wa takunu aljibaalu kal'ihni almanfuush فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية wa ma adraka ma hiya naarun xaamiya suuratul qaari'a ay aayam di fukk ak benn bokk ci saar yi nga xam ni Makka la wàcc bilaa xilaaf ci loo amul ute bayna al ulama saar bi Makka la wàcc di saar boo xam ne saar bu doy waar la ndax comme ni ñu ko waxee woon ci saar yi nga xam ne ñoo wàcc màkka ci li nga xam ne ci lañuy ñuy faral di wax saar la boo xam ne ci xew-xew lay wax boo xam ne xew bu doy waar la muy xew-xewu mujjug jamono wala boog tukkik jamono tukki àdduna ak jeexam ak dekki gi nga xam ne nit ñi dinañ ko dekki saar bi ci loolu lay wax di wax ci xew-xew boobu nga xam ne ci la àdduna di tukkee te alquran di ko faral di jox ay tur yu bari dina ko faral di tuddee alwaqia dina ko faral di tuddee alxaqa mais fii gis nañ ni alqaaria la ko tuddee muy loo xam ne day ñëw di fëgg mooy fëgg goo xam ne su yëngatoo su tàbbee rek ñëpp yëpp ñëpp dégg ko la sax dégg gi ñu koy dégg yam ci nopp yi waaye day àgg ba ci xol yi mooy fëgg goo xam ne bu tàbbee ci àdduna amul lu ko dul dégg ndax màggaayam moo tax ak doole ji nga xam dina ko àndal kon xew-xew boobu bu fekkente ni tàbbi na dina doy waar loolu moo tax mu ne alqaaria comme niñ ko waxee woon ci saar yi nga xam ni jiitu na jàll na alquran ni muy waxee dafa doy waar ndax bu fekkee dafay wax ci dara bëgg koo rëyal dala koy wax ci wax joo xam ne daf lay jaaxal maanaam waxin bi moo lay njëkk a jaaxal laata jëmmi mbir mi di la jaaxal waxin bi ndax jékki-jékki rek ne la alqaaria lay fëgg fëggaate kon ba fëggaate kat ba parce que xaraal baab mooy ida daqahu fëgg bunt bu ñu waxee xaraal baab fëgg lay teg mu ne lay fëgg daldi cay yem tàbb jógewaat ci loolu ne mal qaari'a luy loola luy mbir moomu nga xam ne mooy fëgg loolu lu mu wax dara yow mi koy dégg ngay laajte naan lu mu ki la ko wax naan la lu mu nga naan lu mu mu naan la lu mu kon war ngaa lijjant ngir jéem a xam lu mu mun na la waaye mënoo xam lan la loolu ma naan la lan la nga naan lan la mënoo xam lan la ndax kenn mënu laa wax lu mu amul foo mën a xamee loola lu mu moo tax mu ne la wama adraka ana moo lay xamal mal qaari'a lan mooy loola di fëgg waxul wa ma adraka ma hiya parce que foofu damir rek doyoon na fa damir ngir mën a delluwaat ca la mu waxoon mënoon na wax ne ana lan moo lay xamal amul lu la mën a xamal luy loola ndax bu ko junjoo nga xam bu baax la muy wax ndax rek bamtul na la ko ñaari yoon waaye loolu doyu ko mu tuddaat ko ne la amul lu la mën a xamal lan mooy loola di fëgg nga xam ne bu tàbbee fëgg moom ku ne di ko dégg xam nga léeg-léeg nit ñëw sa kër fëgg dégguloo ko fëgg mu amul doole mu dellu waaye am na fëggin boo xam ne bu ñu fëggee loo doon def di ko bàyyi ci buntu bi xew-xew bi itam bu tàbbee lu waaye doon def dina ko bàyyi déglu ko ba xam lan la ndax àdduna dina yëngatu yëngatu boo xam ni lu waaye doon def di ko bàyyi yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafay wax ci nettali yi muy nettali ci mujjug jamono ak tukkik àdduna bu fekkente ni masiha dajjal ñëw na ba def ci kaw suuf ñeent fukki guddi ñeent fukki fan yoo xam ne am na ci fan bu tolloog at am na ci fan yu tolloog weer am na ci fan yi tollook semaine nga xam ne daanaka fu ne ci kaw suuf dina fa jaar amul benn dëkk lu dul ne masiha dajjal na fa teg tànkam ba mu des Màkka ak Madina ci ñeent fukki fan yàqte yàq yàqute goo xam ne ci kaw suuf amul fitna bu ko gën a tar bu yàlla defee Isa ibnu Maryam wàcc fekk jullit ñi am njiit bu tudd al mahdi di muhammad ibn abdullah bokk ci sëti yonent bi alayhi salatu wasalaam bu ñëwee ànd ak moom ñu jaamaarloo ak saay-saay boobu di masih dajjal isa ibnu mariam rey ko ci loxoom bu ko reyee daal di delloo njub ak maandute ci kaw suuf yonent bi alayhi salatu wasalaam ne képp ku dund ci jamono jooja mu ne texe ñel na la ndax suuf dina amaat njub goo xam ne néew na jamono jum ko amee ndax isa laata mu fiy jóge dina delloowaat njub lépp luy caaxaan mu jële ko fi soog a faatu bu fekkente ni xew-xew jàll na ab diir lañ ciy teg yàlla daal di yabal ngelaw loo xamante ni bu ñëwee kum fi fekk sa xol am lu tolloog pepp ci ngëm yàlla boo ko nokkee da ngay faatu ngelaw loolu dafa nekk ngelaw luy ñëw di raxas kaw suuf lépp lu baaxoon lu fi nekkoon da ko fiy jële ñi gëm yàlla ñëpp jóge fi yàlla yëkkati waat alquran alquran yàlla da koy yëkkati mu dellu ci moom bu ko defee ñi gën a yées ci doomu aadama yi ñoo fiy des moo tax yonente bi alayhi salatu wasalam ne laa taqumu saa illa ala shiraari alxalq bi su penc buy taxaw ñi gën a bon ci mbindee yi la fiy fekk ñoo ñooñu fii des nga xam ne ku gëm yàlla desatul ci seen biir seytaane day ñëw delloowaat leen ci jaamu ay xërëm ak bépp xeetu lu bon ñu ne ca ci loolu lañuy ñuy ne ba benn waay ne ci wetu ab teen yore ab ay gëléemam di leen wëgg dégg yuuxu buy jib mu bàyyi lam doon def di déglu yuuxu gi ndakate loolu israfil mooy ëpp boftu bi mooy boft bi yàlla di wax naan yow ma yun faxu fi suur fa saaqa man fi samawati wal ard mooy bis bi nga xam ne ci lañuy ëf boft bi ëf googu bu yuuxu boobu bu jubee doomu aadama mënu koo dékku amul mbindeef mu ko mën a dékku coow loolu xew xew xew xew xew xew boobu bu tàbbee dina dem ba asamaan xotteeku suuf xotteeku montagne yi toj nekk ab poussière nekk ab dóom suuf yëngu-yëngu goo xam ne mosu koo yëngu xew-xew bu mel noonu kay bu tàbbee ku ne di nga ko yëg loolu kon mooy fëgg gi nga xam ne bu fëggee fu waaye ne di nga ko dégg lu waaye doon def di ko bàyyi moo tax dina ñëw ci sóoratu zalzala loo xam daf ñuy delloo ci tàmbalik sóoratul xaj yàlla subhanahu wa taala ne inna zalzalata saati shay'un azim yëngu googu yëngu bu rëy la moo tax mu ne wa ma ana lan moo lay xamal mal qaaria luy loola nga xam ne day fëgg mu ne loola di fëgg di yëngu googu di am nga xam ne bu ñëwee bu tàbbee xew-xew boobu bu amee ñépp yëg ko mu ne yow ma mi ngi am yow ma mi ngi tàbbi yakunu bis bi nga xamante ni dina tàbbi yow ma bis bi nga xamante ni yakunu dina nekk annaasu nit ñi kal faraash al mabsuus mu ne bis bi nga xam ne ci loolu lay tàbbi nit ñi dinañ tasaaroo tasaaroo boo xam ne dañuy mel ne comme ay lëpp ay njanaaw yoo xam ne dañoo nekk ci guddi gu lëndëm nga taal safara boo demee ci àll bi nekk ci biir lëndëm bi nga taal safara soccet yeeg yi naaw yu ndaw yi lëpp lëpp yu ndaw yi dañuy naaw nga gis te ñu tasaaroo ku ne jëm fenn ñu ciy tàbbi noonu ñuy naawee ñoom nuroowuñu ak naaw naawu picc ndax alxuraan ni muy waxee dafa doy waar lu mu la méngaleel ak mbir rek am na lu tax tas gi nit ñi di tas joxu ko misaale wu ko naaw picc ndax picc bu ñuy naaw dañuy faral def ay mbooloo di ànd loolu mooy xam nañ fu ñu jëm waaye ñii ni ñuy naawee naawu ko xamul fu mu jëm la ndax ñoom du ñu ànd ku ne rek da ngay tëb di dal ku ne rek di tëb di dal ñuy tasaaroo nga gis ñuy def nii mu noonu la ñuy mel kal dañuy mel ne ay lëpp ay lëppaa wala yu tolloog moom ci weñ yeeg yu sew sewaan yi al ñu tasaaroo mu ne noonu la nit ñi doomu aadama yi di mel ndax jaaxle goo xam dinañ ko jaaxle kenn du xam foo jëm te léeg-léeg nit ki bu jaaxleem demee ba tar day daw daw ku jaaxle ku jànnaxe ndax amul làqatukaay amul dawukaay boo xam nit mën na faa làqu ba yëg ne mi ngi ci sécurité ndax léeg-léeg yenn xew-xew yi am fenn ci benn wàll ci àdduna bi wala dëkk ba nga ne nga daw jóge foofu jëm fa ca des waaye fii daa amul foo mën a jëm ba mucc ci loolu nga xam ne moom ngay daw ndax àdduna bépp mooy àndandoo di yëngatu moo tax mu ne kon nit ñi dañuy nekk ci bis boobu nga xam ne ci la xew-xew googu di tàbbee kal farashil mabthous dañuy mel ne comme lëppaalëf yooyu ak soccet yooyu nga xamante ni dañoo naaw tasaaroo ku ci nekk ak fa nga jëm bokkalewloo ko ak sa moroom mu ne wa takunu ci bés boobu itam nga xam ne ci lay tàbbee ca la xew-xew boobu di amee dina nekk itam aljibaalu doj yi muy montagne yi nga xam ne ci mbindeef yàlla yi gën a màgg ci àdduna bi bokk na ci duñu wax ci lépp lu yàlla sàkk waaye ci luñu xaj ñu xam ci àdduna bi ci mbindeef yàlla yi gën a am kàttan nga xam ne ñoom la yàlla daajee suuf si dajee suuf si ba suuf si du rëngi rëngi comme ni mu ko waxee ndax daf ko def mu nekk ay mbir yoo xam ne dafa sax ci suuf si bënn ba ca suuf ba ca taat ba mu taaju fa nga xam ne dafay mel ne lu téye suuf si ba suuf si du yëngu du rëng-rëng ak doomu aadama yi loolu xëy na ñu bëri ñu ko xamee ci wàllu science yàggul waaye alquran moom xamaloon nañu ne montagne yi dafa mel ne comme pont boo jël daaj ko fenn am lu dugg am luy feeñ luy feeñ ci luy feeñ ci kaw waaye doomu aadama naka jekk gis biñ mës di gis montagne yépp liñ ci foogoon mooy ab jalu suuf bu taxaw rek la ci kaw wala ay jalu xeer bu ne ci kaw xamuñu woon ne am na lu ne ci biir montagne yooyu ak li ñuy am am kàttan yépp suñu borom subhanahu wa taala ngir melal la màggaayu xew-xew boobu ak dayo bi nga xam ne dina ko am ci jamono ji mu wax la ne la nit ñi jaaxle googu ñuy nekk am na lu ko waral loolu ko waral lii lay def li muy def mooy lan mu ne xew-xew boobu bu fekkee am na takunul jibaalu doj yi montagnes yi dañuy nekk kal ihn mel na kon ab ab ab leen leen boo xam da koy téye sa loxo di ko def ni muy wëtteen nu mu nooyee mu ne montagne yi dafay toj nekk doom boo xam ne noonu lay mel lu koy wutale ab leen mooy ne leen dafa weex waaye moom dafay nekk man manfuush kal man manfuush dafay mel ne lenn boo xam ne wëtteen boo xam da nga koo cuub boo ko cuubee ba mu xàll ni muy mel na ne montagne yi noonu lay mel ndax comme montagne yi ay doj yu bëree ci ne te doj la yoo xamante ni yi dañoo ñuul yu xonq buñ ko mokkalee ba mu mokk rumbux boo tibbee doom bi da ngay gis ne dafay am couleur du weex mu ne la comme ab lenn lay mel li ko wutale ab ab ak akub leen mooy dafay mel ne leen boo dañ koo jël sóob ko ci cuub cuub ko boo ko génnee ni couleur ni couleur bi di xallee loolu rek moo leen wutale wa illaa cib nooy noonu lay mel xam nga ni foofu la fa jaar ba mokkal loolu xajul ci doomu aadama moo tax loolu ci la àdduna di tukkee loolu ci la àdduna di tukkee amul genn ruux lenn lu am bakkan loo xamante ni dina des ci xew-xew boobu bu fekkee romb la jëmmi borom bi rek subhanahu wa taala moo fi des moo tax mu ne kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal kiram lépp lu ne ci kaw suuf lépp loo xam ne mi ngi dund rek dina fi jóge jëmmi borom bi subhanahu wa taala moo fi des yuuxu googu bu bu jibee du fi bàyyi lenn ki ko yuuxu sax day faatu ma ne ki ko yuuxu sax day faatu du fi bàyyi lenn ci loolu la àdduna di tukkee dund daal di jeex ci kaw suuf dund jeex ci kaw suuf dund dootu fi amati ginnaaw loolu nag ci la borom bi subhanahu wa taala di dekkale doomu aadama yi dekk gi yàlla di dekkalee nit ñi itam geneen yuuxu dina ca jëpp geneen yuuxu dina jëpp ginnaaw bu leen yàlla dekkilee bu ku ci jóg rek daal di jëm ca fa nga dégg yuuxu bi muxtiina ila daa fañ dégg yuuxu ba fa la ñuy jëm ku génn rek fa nga dégg yuuxu ba fa ngay jëm loolu mooy fi ñu tuddee al mahshar mooy fa leen yàlla di fang nit ñi dajale leen fa ñoom ñëpp fay dajaloo ku génn rek xam nga fa nga jëm waaye ginnaaw loolu am na diir boo xam ne dina fi am mu tolloog ñeent fukk ñeent fukk yi yonent bi alayhi salatu wasallam wax na ko waxul ndax ay at la wala ndax ay siècle la wala ndax ay weer la wala ay ay bés la muy ay semaine wala ay fan la daf ne rek ñeent fukk dina fi dox ginnaaw bu dund jeexee ci kaw suuf ak bu yàlla di dekkil nit yàlla dekki leen ci taw boo xam ni bu tawee doomu aadama yi ak lu ko leen suuf lekk-lekk doomu aadama am na benn cër bu ne ci moom boo xam ne yax bu ne ci moom boo xam ne suuf du ko lekk ci ndiggu nit lay nekk suuf fi la koy bàyyi yàlla ci loolu la leen di dekkalaatee ñu del si comme ni mu leen sàkke woon bu ko defee doomu aadama yi daal di dekki dégg yuuxu ga ñaareelu yuuxu googu ci la ñuy daal di jóge ci seen i bàmmeel jëm ca yuuxu ga buñ dajee foofu ca taxawaay booba nga xam ne foofu mooy bis bi yàlla jox naan yow ma yaqumu naasu li rabbil alamin bis ba ñuy taxaw ci taxawaay bu metti ba nga xam ne nit ñi dinañ dem ba sonn bay wax ne na leen seen borom àtte fu waay fu waay jëm moo xam waaye nañ na leen àtte ndax taxawaay bi metti na xam nga loolu jaaxle rek moo leen ci yóbbu ndax koo xam ne fa nga jëm xamuloo ko nga naan waaye naa fi jóge rek boobu sonn nañ nit ñi di gisee ci seen biir di dem ci ñi ñu yaakaar ne bu ñu ñaanee borom bi subhanahu wa taala mu daldi àtte mbiri jàmm ci la ñuy demee ci lenn ci yonent yàlla yi ñu ci ñoom ak mbaax lu mel ne Adam Nuux Ibrahim Muusa ba ci Isa ñu mujjee ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne loolu loolu moom moom la ko yàlla jagleel cër boobu moom la ko yàlla jox mu dem ca suufu arash daal di fay sujjóot ñaan boroomam tagg ko kañ ko yàlla ne ko jugal nga ñaan ñu jox la nga laaj ñu may la nga ñaan ñu may la nga laaj ñu jox la ci lay daal di ñaane yàlla subhanahu wa taala mu atte diggante jaam yërëm aw xeetam ca foofu la yàlla subhanahu wa taala di attee nit ñi régler leen seen jëf moo tax kon ba loolu xewee ba nit ñi àdduna tukki doomu aadama yi faatu ba yàlla subhanahu wa taala dekkil leen ci leen ci la ci la waxee ne fa amma man saqulat mawazinuhu mooy ne xew-xew boobu bu amee am na lu cay juddoo lu cay juddoo mooy leen fi taxoon a nekk ak ci li ngeen ne woon yàlla dina ko lijjanti ndax yàlla sàkk gi mu leen sàkk waxoon na leen ne afa xasibatum annama xalaqnaakum abathan ndax da ngeen yaakaar ne dama leen sàkk ci lu dul dara ci neen mooy am na jubluwaay boo tax ma sàkk leen kon loolu yàlla subhanahu wa taala dina ko lijjanti ci jëf yi nga xamante ne woon nañ fi di ko jëf huwa huwa alladi alladi xalaqa almawta walxayaata li yabluwakum ayukum axsanu amala mu daal di wax ne fa amma man thaqulat mawasinu yàlla subhanahu wa taala yowma alqiyama dafay natt jëfi jaam yi ci ne wér na ni li mu wax ne wa nuqimu mawasina alqist li yowmi alqiyama yàlla subhanahu wa taala dina ay balance ay nattukaay yoo xam ne ci lañuy teg jëfi jaam ñi di ko natt loolu lu wér la ci ne yàlla subhanahu wa taala dafay natt jëfi jaam ñi moo ne moom subhanahu wa xam na ko xam na lu waay yelloo même bu ko nattulee xam na ko waaye maanduteem moo waral loolu mooy jaam bi taxaw mu nattal la sa jëf ci loo xam ni mënoo cee teg baat moo tax am benn xadis bu ne amul kenn kuy dugg safara lu dul ne moom ci boppam xam na ni safara moo gën a yey ci moom aljanna nit ku dugg safara rek jamono bu muy dugg boo ko daboon laaj ko ne ko sëñ bi foo jëm dina ne man lii laa yàlloo ndax am doomu aadama mënul am ngant ci digganteem ak boroomam doomu aadama mënul am ngant ci digganteem ak boroomam ndax yàlla dafa wàccoo lépp loo xam ne doxoon na ci digganteem ak jaamam yi subhanahu wa moo tax mu ne fa amma man saqulat ko mu wax ne kon bu boobaa bu fekkee nit ñi dekk nañ ñaari catégorie lañuy doon koo xamante ni ay jëfam baax na ak koo xamante ni ay jëfam safaan ba la jëfam baax na lim ci nam mooy nekkul na xëy na jëf yépp lu baax la waaye lu baax moo not ci ay jëfam jëfam bon na xëy na du ne jëf yépp lu bon la am na ci nit ñu àgg foofu ñoo xam ne amuñu benn jëf bu baax daanaka mooy ñu wax ne fala nuqimu lahum yawmal qiyamati waznan ñoo xam ne moom amuñu ci ay jëf yu baax jaruñ sax nekk fi di natt seeni jëf lu ci baax ak lu ci bon ñi nga xamante ni bii seeni jëf lu bon moo ca not mu nekk ñaari kuréel moo tax bu ñu dekkee dañuy wute nekk ñoo xamante ne bi seen jëf lu baax moo ca not ak ñoo xam seen jëf lu moo ca not waaye lijjanti jëf lu baax moo ca not ak jëf lu bon moo ca not dafa am charte charte bi mooy nit ki faatu ci ngëm yàlla nit ki faatu yóbbaale woon ngëm yàlla kooku moom desu ko nattal ay jëfam am na ci borom xam-xam ñu wax ne kooku yàlla du ko nattal ay jëfam lu tax du ko nattal ay jëfam mooy cëslaay di fondement wu jëf bu baax bi mën a tax nit ki def jëf bu baax ba yàlla nangul ko ko yowmal xiyaam mu ko koy tegal ci kanamam mooy ngëm yàlla jiitu ci moom wa illaa bu fekkee ngëm yàlla nekku fi amul fondement bu mu mën a tabax ay jëfam yu baax li mu fi nekk di ko def ci lu baax ci yenn jëf yoo xam ne ku ko gis xam ne lii jëf bu baax la yàlla da ko koy fay fii ci àdduna mooy ñi nga xam ne bu ñu dekkee ñëw yàlla danaa leen adhabtum tayyibatikum fi xayatikum dunya wastamtaatum biha seen jëf yu baax ya bànneexoo ngeen ko ci àdduna yàlla jox na leen ko ci àdduna fa yem jullit nag moom yàlla da koy dencal ay jëfam yu baax di ko xéewal ci ay xéewalam moom borom bi subhanahu wa taala ñaareel bi ci des mooy natt yi mu lay teg ak métit yi mu lay teg mu la ci faral say bàkkaar moo tax ala kulli boo jëfee benn jëf bu baax mu fay la fukk boo mbébétee lu baax sax defuloo ko mu fay la ko benn moo tax Abdullah ibn Mas'ud ne képp ku boo jëfee lu bon mu fay la benn boo jëfee lu baax mu fay la fukk te fukk yi mooy tàmbali waaye du ca yem mën na dem ba juróom-ñatt téeméer mën na dem ba juróom-ñatt téeméer wala yàlla tibb lu ko soob jox la mooy ñi muy wax ne da di jox te du wàññi moom borom bi subhanahu wa taala koo xam ne benn jëf bu baax ñu fay la benn boo jëfee lu baax ci fukk lay tàmbalee fay bi li gën a tuuti fukk Abdullah ibn Mas'ud nee na képp ku dof dof lu ba say benn benn gañe say fukk fukk mu nee na kooku moo torox kuy jëf fii ñu lay fay fukk fukk gën gaa tuuti di jëf fii ñu lay fay benn benn nga sàggan ba benn benn yi dem ba gañe fukk fukk yi nee na kooku moom ku torox nga ku perte yàlla na yàlla yërëm mu daal di wax ne kon bu fekkente ni taxawaay yooyu am na yàlla subhanahu gaa aaral gaaral nañu seen i jëf ñu natt jëf ya jëf yi ñuy natt dañuy natt jëmi jëf bi ñenn ñeneen jëmi nit ki ci boppam des koy natt nit ki ak mbaaxam léeg-léeg day tax moom ci boppam mu nekk ku diis ci balance dañ koy jël moom ci boppam teg ko ci balance bi mu peese lu diis a diis a diis li koy firndeel mooy Abdullah ibn Mas'ud dafa nekkoon nit ku tuutee tuuti benn bis mu yëg ci benn garab yor tànk yi tànk yi tuuti ba bi ngelaw li naawee tànk yi da doon baajawu di def nii saxaaba yi toogoon ci suuf di reetaan yonente bi alayhi salatu wasalaam ne atadxakuna min diqati saaqay fa walladi nafsi bi yadi lahuma athqalu fi lmisani min jabali uhud yonente bi alayhi salatu wasalaam ne leen ndax da ngeen di reetaan sewuk tànkam yi tànkam yi nu mu cokkee reen yi sew ndax da ngeen koy ree maa ngi wat ci sama bakkan nekk ci loxoom ne tànkam yi ak li muy sew sew moo gën a diis ci balance yu yowmal qiyam jabalu Uhud montagne Uhud nee na ñaari tànk yi ak sewaayam bi bu ñu ko tegee yowmal qiyam ci kaw balance la muy peese boo ko boo tegoon jabalu montagne Uhud doju Uhud du ko peese Uhud di montagne boo xam ne yàlla rek moo xam lu mu toll ñenn ñi ne lay léeg-léeg itam des na jël téere yi nga xam ne fii lañ bind jëf yu baaxu nit ki ñu teg ko daal di koy peese du jëmmi jëf ci waaye téere yi ñu ko bind mu lañ tuddee saxaaiful amal ndax nit ku nekk am nga ñaari malaaka yu la séq mooy li mu wax ne lahu muaqibatun min bayna yadayhi wa min xalfihi yaxfadunahu min amrillah li yonente bi wax ne taaqabuna fikum malaikatun bil layl wa malaikatun bin nahar mooy li mu wax ne kiraman katibin yaalamuuna ma tafaaluun mooy ñaari malaaka yi nga xam ne du ñuy ànd ak yow dàq sa giiru dund waaye dañuy ayante bu ñeen ñëwee ci bëccëg bi dem ñu ci des ñëw ci beneen wàll ci guddi gi ñu di bind di yóbbu ci borom bi subhanahu wa taala la ñuy bind ñu la koy dencal foofu ñu koy denc nee nañ loolu dañ koy jël peese ko ndax loolu dayoo bi muy am ci balance mooy jëf yu baax yi ca ne na mu toll loolu li koy firndeel mooy yonente bi alayhi salatu wasallam nee na yowmal qiyam benn waaye dina ñëw ci xeetam la wax nee na bu ñëwee indi ci jëf bon loo xam ne fu da xool ba fu sa bët ndax jëf yu bon nee na li mu yor ci ay dossiers yoo xam ne ay jëf yu bon a ci ne kenn xamul nu mu toll lu ko yàlla wan mu ne ko lii moom aw ma lu ma ciy wax maa ko def sax ñu fiy nekk di continuer régler bi nañ tëj maanaam dafa dem ba jëf yu bon yi bëri ba moom mu naan nañ arrêté daal doy na moom nangu na ni lii moo ko def nañ ko yóbbu safara yàlla na ko man du ma la tooñ sa jëf yëpp dinaa la ko régler yow koy defal ndànk rek ñu wan koo wan a wan a wan ba ne moom alku na safara la jëm fii mu taxaw bu fi jógee safara la jëm yàlla ne ko ndax am nga jëf bu baax mu ne aw ma jëf bu baax te su ma ko amoon sax amul njariñ ndax lii moom xaw ma fu ma jëm ak moom yàlla ne ko añ kayit am nga jëf bu baax ñu dem ci jëfam yu baaxee xool fekk fa ab as laxas su tuuti ab kayit bu ndaw bu ñu bu ñu bu ñu laxas ñu indi kayit bi di tàqar ñi mu naan lii yéen da ngeen may ñaawal wala lan lii jarul lijjanti lii jarul lii ak li ngeen teg nii ban dayoo bi sax tolloowul yàlla ne ko du ma la tooñ ñu làqar ci bitaaqa bi fekk ci laa ilaha illa yàlla ne jël leen jëf yi bon yi ngeen teg ci genn wàll jël laa ilaha illa allah bi ngeen teg ko ci geneen wàll ashhadu an laa ilaha illa allah bu mu waxoon seede yàlla ak wéetam faatu ci loolu te mu nekk lu dëggu ci moom ak la muy bon bon ay jëf yépp yàlla na jël leen loolu ngeen teg ko ci geneen wàll gi ci balance dañ ko cee def teg jëf ya jëf ya naaw yonente bi alayhi salatu salaam ne amul lu ñuy teg ak ci balance la ilaha illallah lu dul ne dina la yëkkati mu daanu kon loolu mooy njariñu la ilaha illallah boo xam nit ki da ko wax mu dëggu ci xolam moo tax mu ne man qaala la ilaha illallah nafaatuhu yawman min dahrihi ku wax laa ilaha illallah te mu dëggu ci yow dina la mës a jariñ donte benn fan ci sa dund dina la ko mës a jariñ kon loolu mooy wane ne des na peeseel jaam ñi loolu lañuy ñuy peese nag lu bari la moo tax mu ne fa am ma mu ne ndara ki nga xam ne ndaxam ki nga xam ni saqulat diis na fa am ma man mu ne ndaxam ki nga xam ne nag saqulat diis na mawaazinuhu ay nattam ay nattam waxul misaanuhu def ne mawaazinuhu mawaazin ñene mooy jamu misaan ñene ñu ne jamu mawzun la ndax misaan mooy jëmmi balance ba ñuy natte waaye mawzun mooy lañ cay natt léegi fii lim ci namm mooy koo xamante ni ak nattam diis na léegi natt mën nañ koo natt mu diis waaye lu ko diisal lim ci namm mooy balance boobu buñ ca tegee lu baax dafay diis buñ ca tegee lu bon dafay oyof kon bu ne koo xamante ni bii ab nattam teg nañ ca balance ba ay jëfam natt ko mu diis loolu mooy ay jëfam yu baax gën naa diis ëpp na ay jëfam yu bon loolu la ci nam ndax saqulat mooy loo xamante ni teg nañ ko mu dis ci balance ba dis ga la ko waral mooy ak mbaaxam mooy ne lu baax ya daf caa ëpp ndax bu fekkoon lu bon ya moo ci ëpp dafa naan dafa woyof du ko melal lu dis mu ne kooka nga xamante ni nag ay jëfam yu baax teg nañ ko ca balance ba natt ko mu diis nee na fa huwa moom day kooka day daal di nekk fii iishatin dina nekk ci dund goo xam ne raadiyatin gu mu gërëm la fii iishatin dina nekk ci dund waxul xayaa mais iisha la wax muy wane dund goo xam dundug bànneex ak dundug xéewal kese la naqar amatu ci bu ne raadu ya muy joo xamante ni ju ñu gërëm la ndax raadu ya nekkul ak mardiya xam nga mardiya mooy ku ñu gërëm dëgg dëgg xam nga li mu waxoon ne raadiyatan mardiya génnal nga wuy sa borom nekk ku ñu gërëm waaye nga gërëm nga gërëm sa borom ci lim la defal ci xéewal waaye nga nekk ku ñu gërëm mardu yi mooy ku ñu gërëm mais fii dund gi dafa ne dund gi ci boppam dafa nekk dund goo xam ne moom dafa gërëm waaye xaqiqatan dafa nekk dund gu ñu gërëm ndax borom da koo gërëm amul lum ciy joytu ndax dund goo xam ne la cay fekk weesu na loo mën a xalaat mënoo xalaata xalaata xalaata xalaata xalaat ba sa xel daj lala sa borom dencal aljanna moo tax yàlla subhanahu wa taala wax ne adattu li ibadi salihin ma la aynun ra'at wala udunun samiat wala xatara ala qalbi basar wala xatara ala qalbi bashar dencal naa sama jaam ñu baax ñi ca biir aljanna loo xam ne bët mësu koo gis nopp mësu koo dégg xel mësu koo xalaat xam nga lu sa xel mësta xalaat nga ñëw fekk ko ci dund gu mel noonu boo xamante ni amul lu ca metti lépp bànneex la dem wan ak sax nit ki du ko def nelaw nit ki du ko def ndax nelaw ak wàññeeku la ak matadi la nelaw day mandargaal dund goo xam ne dund gu matadi la moo tax yàlla du nelaw la taaxuduhu sinatun wala nawm li waral loolu ci moom mooy dundam dafa nekk dund gu mat moom borom bi subhanahu wa taala ñun itam suñu dund li ci manqué ci àdduna bu ko yàlla mottalee yowmal qiyam day def ci ñun mat goo xam ne day waral lu ñu nelaw nit ki du ko aajowoo te li muy nekk ci bànneex doy na yitteel na ko yitteel goo xam ne amul jot gu mu nelawee amul jot gu mu nelawee allahul yàlla jox ko xéewal boo xam ne ka gën a néew la ñàkkale solo la muy am ci aljanna di mujjee dund ci di mujjee génn al safara di dem aljanna ka fay mujjee génn di dem aljanna nga xam ne dafay nekk biir aljanna di wëlbatiku fu mu xam di ñaan yàlla naan ko génne ma fi génne ma rek naa génn yàlla ne ko te loolu rek nga bëgg mu a waa yàlla génne ko bu génnee ne fa ba mu yàgg mu ne yàlla na ko yàlla muy ñaan yàlla yàlla soril ko safara gi mu nekk ba daal gis bi mu koy gis mu dañ daal yàlla na ko ah yaa waxoon soo génnee doo laaj leneen de mu ne waa naa def may ma loolu mu may ko tuuti mu jóge booru safara ba séenatu ko nekk ci wetu aljanna ba mu yàgg mu naan dafa bëgg a dugg <laughs> borom bi subhanahu wa taala ne ko waxoon nga ni boo génnee doo laaj leneen nga génn di laaj ñu soril la soril lañu yaa ngi laaj dugg aljanna doomu aadama loolu mooy jikkoom yàlla subhanahu wa taala ne ko mbébétal lan nga soxla boo duggee aljanna muy mbébét la mu bëgg yàlla di ko naan ak nangam di ko ci dolli ci li muy wax di ko fàttali loo xamante ni sax xëy na xelam demu ci bi mu waxee ba fa mu fa xalaatam yem ak li doomu aadama di bëri bëri ay mbébét yàlla ne ko loolu boo ko fulee lu ëpp fukki yoon am nga ko ci biir aljanna dugal doomu aadama mënut a xalaat ki gën a néew la ñàkkale solo gën a tuuti daraja ci aljanna lam fay am mënul am lenn lu ko xalaatal fii ci àdduna ba daj ko ba daj ko ak xelam ndax lu fi xalaat rek loolu weesu na ko kon loolu mooy dund dëgg dëgg dëgg goo xam nit ki da koy gërëm ba du am lenn lu mu ciy naqarlu ak lu mu ciy métitlu moo tax mu ne kon dina am dund goo xam ne dina ne ci dund goo xam ne dund gu mu gu gërëm la dund la goo xamante ni amul lu mu cay métitlu wala lu mu cay naqarlu mu ne waa am maa ndax am nag ki nga xamante ni wa am maa man ndax ki nga xamante ni nag xafat woyof na mawasinuhu ay nattukaayam mooy nattukaayam dañ koy nattalee teg nañ ci ay jëfam mu woyof toll woyof toll donte bari na donte fees na àdduna woyof toll mooy li yonente bi alayhi salatu ne bëri na waa juy rëy ba fu mu romb nit ñi di ko xool fekk ne bu yowmal xiyaamee bu ñu ko tegee ci ab balance du peese lu tolloog laa fu yoo ndax ñàkk solo gu mu ñàkk solo ci yàlla subhanahu wa taala te ku rëy ci jëmmam la ba nit ñi naw loolu kon mooy wane ne bu fekkee jëf amul solo fa yàlla bu ñu ko tegee ci balance du fa peese dara loolu mooy waral oyof gi ak lu mu bari bari kon bul ko natt ci bariwaay bi waaye xoolal jëmmi jëf ci boppam lu mu làmbool lu mu làmbool moo tax mu ne wa amma man xaffat mawazinuhu koo xamante ne ay nattukaayam teg nañ ci ay jëfam mu woyof toll mu ne fa ummuhu kooku ab delluwaayam fa mu jëm haawiyatun am pax la am pax la moo xam dañ ko fay nërmeel aljanna ay darajaat la ay étage la jëm ca kaw fa ca gën a kawe mooy mooy aljanna ja nga xam ne arshu borom bi subhanahu wa mooy plafond bi foofu mooy aljanna ja gën a kawe alliyin bu dee safara ay pax la yu jëm ci suuf nasallah salamata wal afiya ay pax la yu jëm ci suuf yonent bi alayhi salatu wasalam mës na dox ba mu yàgg mu dégg coow lu rëy loo xam ne dafa laaj saxaaba yi ndax xam ngeen loolu lan la ñu ne ko déedéet mu ne aw doj wu ñu sërëxal ci ci ci paxum safara jahannama woo xamante ne yol nañ ko ci lu mat juróom-ñaar fukki junniy at muy tàbbi mi ngi soog a àgg ci suuf moom moo yëngu-yëngu googu ngeen di dégg loolu mooy wane xóotaay bi ak lëndëm gi mu lëndëm ak ñuul gi mu ñuul ci biir ndax safara la soo xam dafa ñuul nekkul comme safara àdduna bi nga xam dafay xonq di ànd ak ak leer leer gi ci ne fii ci àdduna bu safara des ko ci des koo dindi àndut ak leer safara su ñuul kukk la ne ci lëndam googu moo tax mu ne fa ummuhu kooku fa nga xamante ni fa la jëm mooy ma waahu fa mu jëm nga xam ni du fa jóge fa lay tàbbi mu ne haawiyatun pax la moo xam des koy tàbbal mu dóor bopp bi ci suuf pax ma ci ci ca ca taatu pax ma fa lay jëm ummuhu li muy tekki mooy fa nga xam ne fa lay dëkk jëm fa sax fa dàkk du tàqaliko ak moom haawiyatun muy pax moo xam ne des ko ciy tàbbal daldi ko cay yoor mu ne wa ma adraka moo lay xamal maa hiya luy pax mooma pax mooma mooy ban pax ndax pax la mu ñu gas noonu rek wala mu ne déedéet mu ne pax mooma naarun safara la soo xam ne xaamiya dafa tàng ba fu tàng yam yàlla nañ ci yàlla subhanahu wa taala musal mu ne sa pax pax la moo xam ne bul dégg mu ne la fa mu jëm am pax la muñ koy yoor rek nga jàpp ne pax mu mu nekk la noonu rek ne fa leneen newu fa mu ne am pax la moo xam ni dañ koo xamb ba mu ñaan yàlla subhanahu wa taala ak am ak nokki ak noyyi gu muy noyyi noyyi benn yoon nokki benn yoon ci at mi ndax dafa dem ba tàngoor wi di lekk ci biir di ko lekk ndax tàng bu mu tàng ndax liñ ko xamb yàgg na yonente bi alayhi salatu wasallam ne loolu moo waral période bi ngeen di toog mu sedd ak période bi ngeen di toog mu tàng tàngoor bi mooy jamono boo xamante ni safara nokki na seddaay bi mooy jamono joo xam ne noyyi na ne loolu ngeen di gis ci lii loolu nag boo ko waxee ab scientifique du ko du ko gëm moom dafay jàpp ne c'est quelque chose de naturel doxinu jamono ji ak yooyu mais yow jullit bi gëmal li nga xam ne moom la la sa yonente alayhi salatu wasallam wax donte ñoom dañu am yeneen façon yu ñu ko expliquer gëmal lim la wax ci boroomam subhanahu wa taala la ko jëlee kon tàngoor woowu tàngoor la woo xam ne nit mënu koo xam fa mu yem li tax doomu aadama nag di ci tàbbi te du faatu moo tax li mu wax ne wa yatihimul mawtu min kulli makan wala wa yatihi mawtu min kulli makan wa ma huwa bi mayit mu ne nit ku tàbbi safara dee daf koy dikkal ci fànn waaye du faatu dee da koy dikkal ci fànn gu borom xam yi nee nañ mooy sabab bu war a tax mu faatu ci lay ne bis bu ne te du tax mu faatu sabab yi war a tax mu faatu ci lay ne bis bu ne te du faatu ndax dee dañ koy faat dee dañ koy rendi yàlla day def dee soppali ko am am xar moo xam ne dañ koy ñàdd ci diggante ja safara ak aljana bu ñàddee foofu dee dañuy yuuxu waa waa aljanna ba ba ñu wuyu ñu ne xool leen ñu yuuxu waa safara ba ñu wuyu ñu ne xool leen bu ñu xoolee ñu ne ko teqat rendi ne leen lii mooy dee mooy dee amatul jeex dund ba faaw rek dund ba faw rek kon loolu moo tax ñoom seeni jëmm ak ni leen yàlla di sàkkaatee mën a dékku safara soosu ak lu mu tàng-tàng ak lu mu metti metti te duñ ca faatu saar bi ko nekk saar bu màgg boo xam ne ci saar yi wax ci bisu pénc la waaye da koo tàmbali ci xew-xew bi nga xam ne mooy njëkk xew ci àdduna laata nit ñi di fi bàyyeekoo di dem ci xew-xew boobu la xew-xew bu njëkk bi mooy jamono buy tukki xew-xew bu màgg la xew-xew bu rëy la bu raglu la bu nit ki di war di fàttaliku la ak di di ko bàyyi xel bu baax a baax ndax day yàgg rek waaye dina mës ñëw ci ay mandargaam yi ci yonent bi alayhi salatu wasallam bëri ñu ngi koy gis ci ay mandargaam bu tàbbee li muy jur ci njàqare ci nit ñi ak tiit gi muy def ci nit ñi yàlla subhanahu wa wax na ci lu bari am na lu mu ci junj ci ci saar bi bu fekkee nit ñi jóge nañ fi du dee rek mbir yi daal di nen comme ay bàyyima yoo xam ne yàlla joxu leen woon xel jox leen responsabilité déedéet doomu aadama yàlla da koo jox xel jox ko responsabilité mu am ay responsabilité ci ay jëfam lu mu def mu xam ko nekk loo xam ne da koo def ak intention kon loolu war na ci rendre compte bu ëllëgee lan moo taxoon mu def ko doomu aadama responsable la ci ay jëfam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati yàlla subhanahu wa taala mu dekkal leen laaj leen responsabilité boobu nga xam ne moom leen gàlloon fii ci àdduna génne leen seen i jëf natt ko tolloole ko ku ci nekk la nga yelloo yàlla subhanahu wa fay la ko ci mandute ci mandute waaye bu yàlla toppoon jaam ci manduteem rek kon daanaka nit du dugg aljanna mooy la yonente bi alayhi salatu wasalam wax ne laa yadxulul janna ahadun bi amali qaalu xata anta ya rasulallah qaala xata ana illa an yataxammadani allah bi rahmatihi yonente bi alayhi salatu wasalam dafa wax ne amul kuy dugg aljanna ci jëfam jëf sabab la ci dugg aljanna waaye jëf mënut a jënd aljanna bi yi li muy tekki mooy mënoo jënd aljanna ci sa jëf comme ni ngay jëlee sa xaalis dem ci marché bi jënd fa ab yére jox borom yére bi xaalis bi mu jox la yére bi nga xam ne da koo jënd li muy jar nga ko jox aljana loolu kenn amul njëgam kenn mënu ko jëf bi sabab la ngir nga am yërmande yàlla ji nga xam ne moo lay tàbbal aljanna kon yàlla nañu yàlla subhanahu wa taala yërëm moo tax ñi yàlla yërëm def ci ñoom yërmande googu du leen xisaab du leen leen seen jëf régler goo xam ne dafa leen koy toppee lañ ca yelloo rek mu fay leen ko daf leen di wan seeni i jëf bañ gis ko mu jéggal leen ñu dem seen yoon loolu lañ tuddee arab muy gaar da leen di gaaral seen i jëf moo la yonente bi alayhi salaam wax ne yàlla dina wéet ak jaamam ca yowmal qiyam wan ko ay jëfam ba jaam bi ne man day alkunaa li yépp maa ko def ndax lu mu ko wan rek daan ko ndax li yaa ko def mu ne ko maa ko def bu nangoo ba xam ne léegi lii yépp moo ko def yàlla subhanahu wa ne ko ba nga koy def ci àdduna maak yow rek la woon keneen xamul maa la ci suturaaloon ci àdduna sama digganteeg yow ndax yàlla mënoon na def lu nit def ci àdduna ci njombe mu weer ko ñépp xam yàlla mënoon na ko yàlla mënoon na lu def mu tàbbal ko ci xolu nit ñi wala ci seeni xel ñu daal di koy xam ci saasi waaye yàlla moo koy suturaal ab jaamam di ko suturaal ba yowmal qiyam mu ñëw mu ne ni ma la suturaalee woon ci àdduna dinaa la ko suturaalee fii ci àllaaxira demal jéggal naa la nga génn ñëw taxawaat ci mbooloo mi kenn doo xam lu xew bu ñuy dem aljanna nga ànd ci ñuy dem aljanna sa borom jéggal la loolu yërmande yërmande jooju yàlla rek moo ko am subhanahu wa taala yàlla nañu yàlla yërëm saar boobu kon ci saar yi gën a màgg ci saar yi wax ci mbiru yowmal qiyam ak natt gi nga xam ne borom bi dina ko natt jëfi jaam ñi loolu war a waral ci nit ki kon mu góorgóorlu bu baax di xool ay jëfam ay waxam bu baax a baax di ko sàmm ak di jéem a góorgóorlu ci baril ay jëfam yu baax ak di wattandiku jëf yoo xam ni jëf yu bon la bokk na ci liñ ci gën a war a wattandiku mooy ak perte perte gi yonent bi doon wax saxaaba yi naan ndax xam ngeen luy perte perte mooy di sonn di góorgóorlu di def lu baax di moytandiku lu bon waaye di def mbir yoo xam ni sa jëf yu baax yooyu ngay denc da koy yàq loolu mooy ay tooñ tooñ nekk koo xam ne da ngay tooñ ci say làmmiñ wala ci sa wax wala ci sa jëf di wax ci seen ginnaaw wala nga leen di wax wax yoo xamante ni yellul wala yu mel noonu wala nga leen di tooñ ci seen wàllu alal wala ci seen der wala ci seen deret tooñ tooñ yooyu bu ko nit ki wattandikuwul mën na am mberteel yowmal qiyaam ndax mën na ñëw indi lu bari ci ay jëf yu baax nekkoon ku mucc ci ay jëf yu bon waaye bu ñëwee doomu aadama yooyu mu doon tooñ seddoo jëf yu baax yi mu amoon yépp dootul deseeti jëf bu baax te bu ñu seddoo jëf yu baax yi ba mu jeex bu mu am bu amatul lu mu leen fayee dañuy jël ñoom seen i jëf yu bon di ko di ko ko jox loolu yàlla nañ ci yàlla musal moo tax yonente bi alayhi salatu wasallam li muy maandu maandu yépp ngir jox nit ñi leçon ci loolu bàyyi loo leen ci xel laata muy faatu ci ay fan dafa yëg ci kaw minbar bi ne leen yéen doomu aadama yéen ñi ma nekkaloon ku ma ci mës a ameel dërëm ñëwal nga fayeeku ma ko léegi laata ma fiy jóge ñuy dem bis boo xam ne dërëm amu fa dërëm bu ma fayaatee kenn amu fa foofu ay jëf lañ fay fayee te samay jëf du ma ko fay kenn ku ma mës a saaga ci yéen wala ma dóor sama diggu ginnaaw nga nii balaa ñuy dem ca bés boobu loolu wax na ko ci kanamu saxaaba yi kenn mënut a téye sa bopp ndax ay jooy te mooy naan exemple ci mandute sallallahu alayhi wa sallam waaye loolu daf ko def ngir jàngal nit ñi ñu war a moytandiku bu baax a baax mbir yu mel noonu ndax léeg nit mën naay góorgóorlu di def lu baax nekk ci lu baax waaye ci bunt boobu la ko seytaane di ma a bu ko defee mën koo yàqal lu bari ci ay jëfam loolu ci liy waral a nit ki mberteel yowmal qiyam bokk na ci kon saar baa ngoog saar bi ci topp di suratul aadiyat moom am ci borom xam-xam yi saxaaba yi ku mel ne Ibn Abbas wax ne Makka la wàcc ku mel ne Abdullah ibn Mas'ud ak lenn ci sa borom xam-xam yi saxaaba yi ne nañ Madina la wàcc saar la boo xamante ni itam saar bu dooy waar la ndax yàlla subhanahu wa ci mbiri doomu aadama la ciy wax tàmbalee ko ay waat mu nekk fukki aaya ak benn moom itam yàlla ay waat la ko tàmbalee waat yoo xam ne waat yu doy waar la ndax ci lim waat. lenn la ci mbindeefam yi waaye da wat ci façon boo xam ne dafa wane taar ak kàttan bi nekk ci moom ak njariñ li mu amal doomu aadama yi mbindeef boobu mu wat dafa nekk mbindeef moo xam ne ku bari njariñ doomu aadama yi la ku am kattan la itam ku am taar la te loolu yépp yàlla moo ko def ci moom kon mu nekk lu ñuy jariñoo nekk lu ñu soxla lool yàlla wat ci moom wat ci ay anamam yoo xam ne dina ciy nekk ginnaaw loolu mu wax lu ama am solo ci doomu aadama ak mbiram borom bi subhanahu wa taala ne wal aadiyaat waat naa ca ñay daw wal aadiyaat waat naa ca ñay xelu mooy xelukat ya xelukat ya ndax aadiyaat ismu faail la jamcu la jamcu muannas mi ngi jóge ci al adu al adu mooy daw dañoo dindi waaw gi def fa yaa ndax moo gën a méngu méngoo ak baat bi ñu mu tëddee moo tax mu ñu ne wal aadiyaati ndax bu fekkee dañoo kasra dal gi waaw dootu fa mën a nekk waaw méngoowul ak kasra bu ko jiitu moo tax ñu dindi waaw gi def fi yaar muy wal aadiyaati ñay xelu babaxan ak xel babaxan ak xel la muy kon babaxan gi mu wax ne aw xel day feddali la ñuy def muy day feddali la mu wax ne la mu leen tuddee ci ne dañuy xelu mu feddali ko ak ci baat boobu mu wax muy babaxan mu ne ña nga xam ne ñooy xelu am xel dabxan am na ci borom xam parce que dañ ne ci ak dabu la jóge muy ak def muy xel daw daw woo xamante ni daw tar la la fas di daw daw ba nekk ci diggu xelam yàlla wàcc ci jamono jooju nga xam ne ci lay daw ba nekk ci diggu xelam ne ñoom loolu seen mbir lu ñu leen xamee la fas yàlla may na leen ci loolu bu baax a baax ñenn ñi ak dabax mooy fas yi nga xamante ni dañ ko daan jël di ko xaree ji bu fekkante ni dañ koo war nam ma seen noon dañ daan yeew ŋadaw gémmiñu fas wi buñ ko yeewee day tax du ngexal du def wenn benn yëngu goo xam ne ci la ci gémmiñam dina tax fa mu jëm ñu dégg ko ngir mën leen a bett léegi loolu day waral buy daw muy xiixat ndax bu boobaa dootul mën a ubbi gémmiñ gi waaye bakkan bi lay nooyee noonu muy xiixatee xiixat bi di jóge ci dënn bi coow loolu muy def mooy ab dabax di daw di xelu nga xam ne ma ngay ñëw waaye ñoom fa mu jëm ñoom xamuñu lañu la leen di xaar mu wàcc fas ci anam booba melalaat ko ba léegi ne ñooña di daw ci anam booba ne fal muuriyaati maa ngi waat ak ca ña nga xamante ni bii ñooy jibal ñooy yëkkati muuriyaati waara shay mooy bu ko yëkkatee ida kashafa mu yëkkati mu wuññi xadxan ay ferñeent mu ne maa ngi waat ci ñi nga xamante ne bi ñooy yëkkati ay ferñent ci taruk daw ga ñuy daw ndax fas bu fekkee day daw dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ci ay doj ci ay xeer xeer yi day fettax di fénqante fénqante boobu xeer yi di fénqante da ngay gis dafay génne ay ceeñeer di génne ay ferñent muy xeetu xeer yi ñu tuddee xadax nga xam ne bu njëkkoon moom lañ daan jël di ko boyale boo ko fénqalee nii dafay génne ay ceeñeer daanañ fexe ba di ci boyal di ci taal xeer yu mel noonu nga xam ne dafa wow nekk ay doj yu nekk ci àll bi bu ci fas di daw dëgg di dóor tànk yi tànk yi ni muy dalee ci xeer yi xeer yi di fénqante dafay génne ay ceeñeer nga xam ne loolu kàttan dëgg la guy guy guy feeñ ci daw bi muy daw yàlla subhanahu wa taala ni ñooy daw ci anam boobu fas rawatina bu fekkee tànk yi dañ koo dañ cee def ay fer def ci ay weñ mooy daal yi ñu koy defal ci suuf bu koy dóor ci xeer yi dangay ngay gis rawatina bu fekkee dafa nekk ci guddi muy fettax di def ay ferñeent mu daal di waxaat ne ñooña nga xam ne ci lay wat fal muuriyaati mu ne ñooy wuññi ñooy bert ñooy bert fal muuriyaati mu ne ñooy bertaate sabaxan wala subaxan ci fajar wala waxtu njël ndax wala fal muxiiraati euh, bàyyi nañ muuriyaati gi ñu ngi ci fal muxiiraati al ixaara mooy bertaate waxtu njël ndax bu njëkkoon bu fekkante ni bëgg nañ song seen i noonu dañ daan ñëw ba jege dëkk ba daal di fay wàcc bu ñu wàccee fanaan toog ba waxtu njël nga xam ne day fekk nit ñi ne ci yeneen nga jékki-jékki rek daal di dal ci seen kaw balaa ñuy wàcc fekk def nga la nga bëggoon def mu ne loolu ci fas lañ koy faral di defee ndax gaaw googu moo ko am moo am gaaw gu ko mën a may mu bert noon bi mberteel boo xam ne laata muy fagaru fekk dal nga ci kawam ndax boo jëloon beneen warukaay wala nga dox ak sa tànk doo mën a gaawee noonu bu la séenee ngay ñëw dina gaawant daal di jël ay matuwaayam moo tax mu ne fal mughiraati ñooñ ñooy bertaate subaxan waxtu njël laata nit ki di jël ay matuwaayam rek fekk ne dal nga ci kawam yonente bi alayhi salatu wasalam noonu la defoon waa xaybar yahud ya nga xam ne ñoo nekkoon xaybar yonente bi ñum daan dàq ci booru dina yépp ci ay yahud daf leen daan dàq ñu dem toog xaybar ndaxte ñu ngi fay dajaloo rek di monte di def foofu seen benn communauté boo xam dañ dem ba commencé am fa doole di nas nag ay pexe di ko jëmale ci islaam ak ci jullit ñi yéefar màkk yi tàmbali di leen dimbali ko ñu fay daje di def ay pexe ngir nan la ñuy dal ci kaw jullit yi bi ko yonent bi alayhi salatu wasallam xamee nag dem nag jug ci ñoom ba mu fay dem waxtu njël ak si ñoom fekk ñu war a xëy dem ci seeni tool dañ koo seen rek daw ne Muhammad ñëw na ak soldaar yi daal di dawal bañ dawee mu ñëw agsi ci dëkk bi daal di lijjanti mbir yar leen ba na mu mujjee ak ñoom xam nañ ko mu ne kon fal mu fal suba subhan mooy ya nga xamante ni dañuy songaate congub mberteel boo xam ne dañuy ñëw rek fajar daal di lay song mu ne fa asar na bihi ñu daal di yëkkati fa asar na ñu yëkkati ñu wuññi fa asar na ñu yëkkati bihi ca daw googu ñuy daw naqaan ab pënd naqaan ab pënd nee na ñoom bu ñu dawee fu ñu romb da gis pënd bi dafay jóg kon daw boobu mu waxoon ne dañ koy daw nee na dañ cey yëkkati ab pënd ñoom fas yooyu ndax xel di xel bi nga xamante ne dinañ ko daw mu ne fa wasatu na bihi ñu daal di dajaloo bihi ca daw googu ñu doon daw dem ba dajaloo jamaan daal di def aw mbooloo taxaw ci genn ëtt taxaw fenn ñenn ñi ne fa wasatu na bihi dinañ diggu doomu fa wasatu na mooy diggu doomu mooy fekk am mbooloo nga dugg seen biir xuus ci seen biir nekk ca digg ba moo tax mu ne fa wasat na bii dinañ digg doomu bi ca daw boobu ñuy daw jamaan am mbooloo mooy fekk am mbooloo bu xeex bi tàngee ñu yor fas yi da leen di seet ñu xuus dugg ca biir ne ca moo tax mu ne fa wasat na bii dinañ diggu doomu ca daw bañ doon daw jamaan ab mbooloo waaye ñeneen ku mel ne alxaafis ka kathir boo ko seetloo mi ngi koy tekki moom ci daje goo xamante ni dañ dem ba dajaloo ko jamaan ñoom ñëpp def benn mbooloo kenn du des ñëw daal di taxaw mooy àgg nañ fañ doon jëm comme àgg nañ fañ doon jëm nag yàlla wàcc na loola ndax arab dañoo bëggoon fas dañoo fonk fas dañoo teraloon fas fas mandarga la ci ci ci noblesse ak ci kattan ak ci njàmbaar ak ci fit fas naka jekk baaduna sosoo ba léegi moom la nit ñi di jëfandikoo ci seen taxawaay yi gën a am solo ci seen dund ba léegi nit ñi li àdduna di dox dox dox yépp ak li technologie di développé développé yépp fas ba léegi doomu aadama yi mënuñu koo ñàkk jëfandikoo dañ koy soxla ba ci sax armée yi nga xamante ni tey façon waruwaay bu ne am nañ ko boo fa demee da nga leen di fekk ñu yar ay fas am na seen yenn mbir yoo xam ne ci fas lañ koy lañ koy defee daanaka àdduna bi yëpp armée boo xool dañuy am ay fas seen yenn koor yi dañu spécialisé wu ci wàllu fas ndax fas mbiru noble la mbiru kattan la mbiru njàmbaar la ak yu mel noonu bi mu waatee waat gu mel noonu nga xam ne boo ko wàññee ci ni mu ko tuddee benn bu ci nekk mu nekk melokaan woo xam ne day dellu ca lam njëkk a tudd dina mat juróom daf koo jeexal ci ne inna al insana kon agsi na li moo ko taxoon di wat moom borom bi subhanahu wa taala ñu waxoon ne waxam dëgër na dëgër goo xam ne moom yàlla subhanahu wa taala bu ko waatalul sax ñu war koo déglu war koo jox yitte li muy wax rawatina mu tàmbali waxam ak waat ngiñ ngiñ goo xam ni daf koy feddali baamu ko baamu ko baamooti ko baamooti ko loolu lu jara a déglu la waat bi gudd na lool li ko tax di wat mooy doomu aadama ak mbiram ndax doomu aadama dafa lëj doomu aadama yi dafa lëj dafa nekk ku diis dafa nekk ku ku jafe mbir boromam rek subhanahu wa taala moo mën a lijjanti mbiram amul kenn ku mën a yëwanal mbiru doomu aadama lu dul boromam bi ko sàkk kenn ku ko jéem a lijjanti da koy gën a lëjal rek waaye mënuloo ko dara ndax doomu aadama dafa të dafa të yàlla mi ko sàkk sax day nekk di dàggasante ak moom yàlla mi ko sàkk sax dafay nekk di dàggasante ak moom ndax ci noonu la ko yàlla sàkkee mu tàmbali di wax ci doomu aadama mu a innal insaana naka doomu aadama kon dëgëral nag feddali na li muy wax ci waat ngiñ yi mu giñ waaye tamit tàmbali wax ci ci inna xarfu tawxiit doomu aadama day waxul doomu aadama rek waaye daf ne doomu aadama day feddaliwaat li rabbihi wala boog la kanuudun ku weddi la li rabbihi ñeel boromam la kanuudun doomu aadama ku weddi la ku ku ku ñàkk delloo njukkal boromam la ndax kanuut fii mooy kafuur mooy jaxuut mais jaxd ak kufru bi ñuy wax day dellu ci wàllu xéewal weddi gi ñuy wax mooy ku la defal xéewal nga xam ne bàyyeelu la dara desalu la dara te delloowuloo ko njukkal ci lim la defal loolu lañ ci nam mooy doomu aadama day delloowul boromam njukkal ndax boromam wàcc na ak moom ci lépp lu mu ko war a defal ci ay xéewal defal na ko benn ci xéewal yooyu rek nit ki bu jëloon dundam yépp ngir sant ko cant ga ca war mënu ko mënu koo matal te li ko yàlla di teg ci ay jëf ak li mu ko togg ci ay jëf ak li muy jàppandi jàppandi jàppandi yépp ak li muy woyof woyof yépp doomu adama taxawu ca na mu la ko boroomam subhanahu wa teg ci ay mbir dafa dis gann gann gann gann gann gann gann ci moom te moo ne bu ko tegoon lu gën a dis loolu junni junni junni yoon war na caa ne ndax looloo ko war ndax yàlla moo ko moom moo ko sàkk subhanahu wa xam nga yonte bi alayhi salatu wasalam bu demee bay yàlla di ko jox ci room fukki julli nga xam ne xéewal la goo xam ne ñi mu ko jox waruñu ko woon sax gëme dañu waroon sax ñaan yàlla mu dollil leen waaye ci yërmandeem bi ko Moussa waxee ne sa saw xeet attanuñ juróom fukki julli ndax ay nitu mujju jamono rek te mujj jamono doomu aadama dañuy tayal dañuy new kàttan dañuy ñàkk solo doomu aadama lu àdduna di gën di dem rek ñu gën di ñàkk solo ci ni leen yàlla bindee musaa ne ko man xam naa nit ñi parce que man jëflante na ak banu Israël ñu sonal ma lool te yow sa xeet mu waa mujj jamono ñoo ci ëpp ndax yow yaay yonent bi yàlla mujjee yónni kon dellu sa borom nga ñaan mu wàññil la ko muy dellu ba yàlla def ko juróomi julli xam nga loolu yërmande weesuwu ak oyofal weesuwu ko loolu juróomi julli yàlla na ko yaa ngi dem juróom la waaye yoolu juróom fukk laa koy fay ndax juróom fukk laa bindoon juróom la waaye yoolu juróom fukk laa koy fay kon yóbbul yàlla subhanahu wa taala def dina jox dina jàppandal dina yombal yoo xam ne nu ne anam bu nit nekk rek mën na koo jëfe ndax diinu fitara la daf ne fitaratullahi lati fatara annaasa alayha diina la joo xam ne diinay fitara la yàlla da koo mooñ comme ni mu mooñee doomu aadama noonu la def diine ji mu méngoo ak anam bi mu sàkkee doomu aadama nature bi mu sàkkee nit noonu la tëralee lislaam noonu nit nekkee rek mën na jëfe diineem dañ naan la jullil nga taxaw boo mën taxaw toogal boo mën toog sax tëddal nga julli jàppul nga julli bu la ndox mi dee sonal tiimal kon diine la joo xam ne anam bu nit ne mën na koo jëfe wooral boo mënta woor leeleel koor gi wàcc na ba léegi yaa ngi jëf sa diine am yoolu kuy kuy kuy woor wa hakaza kon diine jooju diiney fitra la loolu yërmandey borom bi la subhanahu wa taala lépp lu yàlla sant nit njariñam la ci àdduna ak ci àllaaxira lépp lu mu tere nit loraangeem la ci àdduna ak àllaaxira waaye ak loolu yépp taxul doomu aadama dégg ndigal yi ko borom bi jox ci li mu ko sant ak li mu ko tere kon doomu aadama dëgg-dëgg bu fekkonte ni sant na boromam ci xéwli ko yàlla defal delloo na njukkal boromam ci xewu li mu ko defal kon doon na ko ngëm gëm boo xamante ni dina waral ci moom mu rus koo moy rus am ci ker kersa di mooy boromam moo tax yonente bi alayhi salatu wasallam dafa daan digal saxaaba yi naan am leen kersa ci seen borom am leen kersa ci seen borom mooy nit ki rus yàlla di ko gis foo xam ne bëgg ko faa gis tere na ko ko ni ngay rusee sa kilifa gi nga xam ni da koo jox cër ba bu la romboon ci mbedd mi ngay def loo xam ne araamul sax waaye dafa xaw a doyee di da ngay am kersa ci loolu ba daw làqatu ji ndax bañ mu gis la ci loolu yàlla moo gën a yey ci nga rus ko am ci moom kersa subhanahu wa taala ndax lim la defal lépp ci ay xéewal ba noppi lam la sant nga toog mën koo def lànk doo ko def lim la tere nga ne ci guddi ak bëccëg loolu ku am kersa xam nañu sa moroomu nit bu def bu la defalee njëkk njëkk googu dina tax mu am lu bari loo xam ne di ko ko may ci sa bopp ndax njëkk gi mu la defal dalay ñaan dara sax nga ne yow def dëgg yàlla moom rus naa laa gànt ndax danga may yàgg a defal ay teranga waaye yàlla mi nga xam ne teranga boo am moo la ko jox na te ci gànt ko suba ak ngoon lañ nekk moo tax mu ne innal insaana doomu aadama day yarhamukallah la kanuudun ku weddi la li rabbihi ñel xéewali boromam subhanahu wa taala dafa weddi xéewali boromam mu ne wa innahu te moom day ala dalika ci loolu la shahid aji xam la aji seede la mu ne la shahidun ala dalik ku xam loolu la ci boppam xam na ni li ko war ci digganteem mu borom def doomu aadama xam na ko bu baax a baax ndax nit ku ne moo la gën a xam boppam xanaa kay tey tey loo fi nekk ak fàtte fàttelu waaye nit ku ne xam nga sa bopp comme li yàlla subhanahu wa taala wax ci suratul qiyama bal il insanu ala nafsihi basira moo tax mu ne wa innahu la shahidun ala dalik ku am gis-gis bu leer la ku seede loolu ci boppam ku ko xam ci boppam la ñenn ñi ne innahu la shahidun ala dalik dafay dellu damir bi delluwul ci doomu aadama waaye ci borom bi lay dellu mooy borom bi xam na loolu yépp yàlla moom loolu yépp xam na ko nekkin bi doomu aadama nekkeek moom ci ñàkk gërëm ay xéewalam ndax gërëm gi bu fekkee dëgg la ci nit ki day waral ci moom mu daal di defar taxawaayam digganteem ak boromam loola doomu aadama def yàlla subhanahu wa taala xam na ko bu baax a ñaari tekki yooyu yëpp borom xam-xam yi tekkee nañ ko aaya boobu mu ne te li ko yàlla defal ci ay xéewal yépp li ko ci war ci gërëm loola ak delloo njukkal googu dara la ci deful ba noppi nag nekk ku bëggee lool lu mu am rek xeeb bëgg lu ci dolli moo tax mu ne wa innahu te moom itam doomu aadama ba léegi la shadidun ku tar la li xubbil xayri ci bëgg mal bëgg bëgg alal bëgg alal fii xayr yiw gi muy wax du yiw rek waaye alal lay alal la ci nam ndax bu dee bëgg lu baax bëgg lu baax kenn du ci xas kenn yàlla ci boppam dafa bëgg ku bëgg lu baax bu doon lu baax lañ ci nam kon yàlla doo ko du ci xas doomu aadama ndax bëgg lu baax moom lu baax la nit ku bëgg lu baax kenn du la ci xas waaye fii alxayr fii lim ci nam mooy alal moo tax mu ne in taraka xayran fal wasiyatu lil walidain in taraka xayran nit ki bu faatoo bàyyi xayran yiw foofu xayr foofu li muy tekki mooy alal mooy nit bu faatoo bàyyi xayr mu ne xayr foofu alal la comme na ko borom xam-xam tekkee ne xayr alal la fii tamit xayr li muy tekkee mooy alal mu ne bëgg alal da cee xër lool lool bëgg alal ak wut ko ak fàggu ko ñenn ñi ne da nay lool ndax shadid fii li ñu ci namm mooy da nay lool da cee lu ne la ko boromam defal te moom du defal kenn dara bu góorgóorloo ba am la mu am da koy téye ñaari yëpp tekkee nañ ko ko moo tax ñu mu ne wa innahu te moom doomu aadama la shadidun ku tar la ku xër la li xubbil xayr ci bëgg alal dafa xër lool ci bëgg alal tekkin boobu nag moo gën a not mu ne loolu mu nekkee day li ko ko yóbbee mooy ñàkk xamam rek waaye bu fekkoonte ni xam na anam boobu du ci ne mooy xam gi jariñ xam gi nga xam ne day jariñ ndax nit ki xam bi ko bi ko jariñul ak ñàkk xam la ko yàlla di tuddee xam gi nga xam ne amalu ko njariñ annahu man amila minkum su'an bi jahalatin yàlla dafay melal kiy jëf lu bon ne kooku ku ku réer la ku xamul la ndax nit dina xam nga ne kii ku réer la dafa réer ndax xam bi lay bi lay jariñ nga ne ci di def lu baax moytandiku lu bon loolu mooy xam gi tax ñuy wax xam ndax nit ki même bu fekkee sax xam-xamam bariwul te mu ne ci lu baax kooku ku xam la ndax xam na li ko amal njariñ mu ne ci waaye ki xam ba yëy kayit te newul ci lu baax kooku dafa réer moo tax fii yàlla subhanahu wa bu gisee doomu aadama ne ci yenn anam yi daf naan moom daa xamul rek bu xamoon ak mu jëm xam ne lii mu ne yàggul léegi mu bàyyi ko fi ne ci dëgg liñ naan ma nga ca dëgg maa ngi ci lu dul dëgg mooy ku faatu yaa ngi ci dëgg bu xamee ne ci dëgg jooju la jëm dina góorgóorlu ci def lu baax ak nekk ci lu yiw ak soppi anam bi yàlla subhanahu wa di xas ci moom mu ne afala yam afala yaalam ndax moom dafa xamul afala yaalamu ndax moom dafa xamul lay xew ak lay am ida jamono joo xam ne boxira wuññees na boxira tasaarees na génne na génne nañu daal di tasaare mu ne dàng maa fil li nga xam ne nekk na ci biir bàmmeel yi bu ñu génnee li ne ci biir bàmmeel yi ba doomu aadama yi ci nekkoon yépp suuf gëq leen ñu génn daldi tasaaroo ba'thara shay ida nasharahu mooy acheyul mubaasar mooy acheyul man al manshur mooy loo xam ne dañ koo tas ndax nit ñi bu ñu génnee seeni i bàmmeel dañuy tasaaroo mu ne ndax doo dafa xamul lay xew ca bis booba ci jamono jooja loolu moo tax lii mu ne mu ne ci ak nii mu mel mu mel ko wa xussi la ñu daal di teewal ñu daal di feeñal maa fi sudur la nga xam ne nekk na ca dënn ya li nekk ci dënn yi liñ ci namm mooy li nga xamante ni nit ñi ñu ngi koy denc ci seenum xel di ko denc ci seen xol yàlla subhanahu wa taala neen des na ko génne loolu nag namu ci ne nit ki la ngay xalaat ci sa xel wala nga koy xalaat ci seen xol boo ëllëgee yàlla da koy génne nit ñi xam ko namu ci loolu lim ci namm mooy loo xam ne def nga ko yow xam nga mu nekk xam-xam boo xam ne mi ngi sa biir nga jàpp ko toog noppi jàpp sa njàmbur xëy na keneen xamul waaye yow xam nga yàlla xam na loolu nga xam ci jëf joo xam ne xëy na nit ñi xamuñu ko bis dina mës a ñëw ñu génn ko kon buñ ko génnee génne nañ li woon ci sa ci sa dënn waaye namuñ ci li génn génne li nekk ci sa dënn namuñ ci ne mooy li nga xam ne nit ki dafay toog di ko xalaat ñu daal di koy génne ndax li yàlla subhanahu wa taala waxoon ne bu fekkente ne in tuxfu ma fi anfusikum aw tubduhu yuxaasibukum bihillah bu ngeen wanee li nekk ci seeni xel wala ngeen nëbbu ko yàlla dina leen ci xisaab dina leen ci régler dina leen ci fay bi ko yàlla waxee loolu dafa diis ci jullit ñi ñu joytu ko yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko nag wax dëgg yàlla bu ñu yàlla di xisaab ba ñuy xisaab ci li ñuy xalaat metti na ndax kenn ci ñun mënut a contrôler li muy xalaat kon bu ci yàlla dee xisaab dina metti ci la yàlla subhanahu wa taala wàccee yeneen saari ñaari saari ci des amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun ba ci rabbana la tuaxidna in nasina axtana yàlla subhanahu wa taala jéggal leen loolu kon yàlla dafa jéggil xeetu muhammad li ñuy xalaat ci seeni xel yàlla du leen ci bindal ay bàkkaar feek waxuñu wala ñu jëf boo ko waxee wala nga def ko nag boobaa bu amee bàkkaar bu ca bu ca nekk yàlla bind bind ko waaye loolu warul tax nit ki bàyyi am xelam rek mu nekk ab poubelle boo xam ne seytaanee lu bon lu mu jël rek tàbbal ko ci sa xel nga nangu ko ndax seytaane bu la tàmmalee xalaat bu bon lu bon loolu ngay xalaat day dem ba sa xel dafay taq xel mi day mujj taq lu bon te xel mu taq lu bon day xër xërtal borom xel ma ci lu bon day def ci moom lu bon moo tax di dàq xalaat yu bon yooyu ci sam xel ak di ko xeex nekk lu baax ak di ko moytandiku loolu mooy tax nga gën cee mucc loolu mooy tax sa bakkan gën a am kàttan ci mën a contrôler sa xel ak mën a moytandiku lépp loo xam ne lu bon la mais boo bàyyee seytaane dem ba not la ci di def sa xel rek lu bon nga jàpp ne xëy na lii de su ma ci bindal bàkkaar rek di ko togg ci xel mi day dem ba xel mi dafay mujj takk ndax gën boo ci dee dëbb lu baax bu nit jëlee ay salte bëgg ko cee sotti bañal ndax bu ko ca sottee même boo ko dindee bëgg ca jëfandikoo lu baax lu baax dafay takk kon xel mi danga ko war a sàmm kon yàlla jéggal na doomu aadama yi loola mooy li nga xamante ni xelu ñuy xalaat la rek nekk seen xel kon wa wax ma fi sudur mooy muyiza ma fi sudur am na ci qiraa boo xam ne wa xasala ma fi sudur wa xasala mooy li nekk ci dënn yi des na ko génn teewal ko bu dee wa xussila mooy wa muyiza des na ko ràññetle des na ràññetle li nekk ci dënn yi yàlla subhanahu wa taala génn lu ci nekk ci ay jëf yoo xamante ni mu ngi ci dënn yi nit ñi di ko xalaat yàlla subhanahu wa taala wan ko borom jëf yooyu la nee na bu fekkonte ni xam na bis booba lay xew kon loolu mu ne du ca ne mu ne loolu bu amee xew-xew boobu bu taxawee bis boobu bu amee inna rabbahum naka seen borom nag la xabiirun bihim yawma idin ku dañ kumpa la ci seen mbir ku dañ kumpa la ci ñoom ca bis booba la xabiirun ku xam seen mbir la ku pekk seen mbir la ca bis booba loolu borom xam-xam yi ne nañ liñ ci namm mooy jëmmi fay bi mu leen di fay fay goo xam ne ak jëflante bi muy jëflanteeg ñoom boo xam ne dafa tegu ci xam-xam bu mat sëkk nga xam ne lépp lu ñu nekkoon yàlla xam na ko lépp lu ñu yellool tamit ci taxawaay ba yàlla subhanahu wa taala xam na ko ci loolu la yàlla subhanahu wa taala di leen fayee seeni yool mooy lam leen di fay ci yool ya daf koy teg ci xibra ci xam bu leer boo xam ne daf leen koo xam ndar képp seen seen mbir ak seen lañ nekkoon loola nag muy fay boobu ca bis boobu lay xewee moo tax mu ne kon ca bis boobu ku leen xam la waaye teg telewul ne yàlla bis booba rek la xam jëfi jaam ñi ndax yàlla bis boobu ak beneen bis bu mu mën a doon itam xam na jëfi jaam ñi xam na ci li ñuy nekk tënk bi mu ko tënk ne yow ma isin ci bis booba ndax bis booba xam-xam boobu mooy lim leen di fay mooy lim leen di fay mooy loolu moo xam ci ñoom xamin bu leer ci loolu la leen di fayee la yàlla yellool subhanahu wa taala moo tax mu ne inna rabbahum naka seen borom yow ma idin ca bis boobu la xabirun bihim ku leen xam la xam seeni mbir moo tax mu ne alaa ya la yaalamu man xalaqa wa huwa latiful xabir ki nga xamante ni moo sàkk ndax moom xamul li mu sàkk yàlla mi leen sàkk moo leen gën a xam sax seen bopp subhanahu wa taala kon beneen saara ngoog boo xam ne itam ak li muy gàtt gàtt yépp saar bu am solo la ndax dafay wax ci doomu aadama ak ay jikkoom ak nekkinam lii nag bu ko yàlla waxee daf koy wax booyal ko ñépp la ci yemale ndax bu ne innal insaana rek ñëpp a ngi ci làmb boobu alif ak làmb boobu lil istixraq la dafa nekk lam al jinsiya mooy ne doomu aadama yëpp dañ ciy dugg ñëpp dañ ciy dugg ndax melokaan boobu mooy melokaanu doomu aadama noonu la mel waaye nit ki gëm yàlla nekk ci lu baax dafay jéem a fexe fóot bakkanam ci loolu moo tax borom xam-xam yi uute ci doomu aadama lan moo jiitu ci moom ndax doomu aadama bakkanam lu baax moo ci jiitu mu war a sàmm lu baax loolu wala ndax lu bon moo ci jiitu mu war a fóot lu bon loolu muy liñ tuddee tazkiyatu nafs li yàlla subhanahu wa wax ne qad aflaha man zakkaha wa qad xaaba man dassaha ku fóot sa bakkan texe nga waaye ku tilimal sa bakkan perte nga waat boobu mooy waat bi gën a màgg ci alquran yàlla waat ko fukki yoon ak benn muy wax shamsi wa duhaaha yàlla bi mu ko waatee daf ko daaneele ci doomu aadama la ko daaneele ba léegi ci mbiru doomu aadama la ko daaneele nga gis ne doomu adama mbiram lu doy waar la wat bi gën a màgg ci alquran yàlla ci doomu aadama la ko wat ci mbiram kase suratu shams wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad xaaba man dassaha borom wax ci wàllu boobu buntu yar comme ci saar bii nii dañuy wax ci wàllu ndax doomu aadama bakkanam lu bon moo ci jiitu mu war a góorgóorlu ci fóot ko wala ndax lu baax yenn ci borom xam-xam yi wax ne doomu aadama ak mucc moo njëkk ci moom ak mucc mooy lab set ndax yàlla subhanahu wa taala da koo mooñ ci fitra boo xam ne dafa set mooy nature boo xam ne dafa mucc ay comme ni ko yonente bi alayhi salatu wasalam ne wax ne ma min mawludin yuladu illa wa yuladu ala alfitra fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunassiraanihi aw yumajjisaanihi képp kuy juddu rek da ngay judd ci nature bi yàlla bëgg ñu ne ci muy diine ji nga xam ne mooy diiney lislaam ci noonu la la yàlla di sàkkee nga ñëw ci àdduna waaye boo ñëwee yi fi nekk séq la di la yar ak di topp sax màgg ak sob yar ñooy jeexital ci yow ba jële la ci nature boobu yóbbu la ci beneen anam kon doomu aadama nature boobu bu ko préserver ci mucc lay nekk mooy bakkanam day mucc dafay laab bu amul leneen lu ñëw tilimal ko donte léeg-léeg juddu gi muy juddu am na lu mën a juddoo jóge ci ay waajuram ci wàllu deret topp ko ci ay jikko loolu mën a am la waaye loolu yépp ba léegi ci ay jeexitat la yoo xam ne ci àdduna bi lay jógee di dellu ci moom loolu moo tax kon doomu aadama bi ala même bu fekkee mucc moo nekk ci moom waaye am na jikko yu nekk ci moom yoo xam ne à tout moment mën na soppeeku nekk lu bon mën na soppeeku nekk bon mooy natiru doomu aadama dafa mën a bon dafa mën a accepter absorber lu bon mooy li ñu tuddee qaabi qaabiliyatu al achar wa qaabiliyatu at taxayur mooy doomu aadama dafa accepter bakkan bi ci boppam dafa accepter jël lu bon melowoo ko li ñu naan ab sa sarraqun natiru doomu aadama dafay sàcc loolu moo tax kon nit ki dafa war a sàmm bakkan boobu fekk ko ci yooyu nga xam ne dañ koy fekk ci alquran yàlla di ko melal doomu aadama di ko ci xas du benn doomu aadama boo mën a joxoñ ne kooku la yàlla di waxal waaye nit ñëpp lay wax ne ci noonu lañ nekk loolu mooy seen mbir kon yow loolu boo ko xamee jikko yooyu dangay ngay jéem yar sa bakkan nga mucc ci loolu li yàlla di xasee doomu aadama ci nekk ku euh, gàttañ lu digganteem ak boromam ci ne wax dëgg yàlla delloolu njukkal boromam santul boromam ci li nga xam ne defal na ko ku dëgg-dëgg ci ay xéewal ndax bu ko defoon kon kon lan lan la mën lan la nit mën a def sax ba ba ba sant dëgg-dëgg xéewalu boromam ndax ne nañ xéewal yi la yàlla defal sant goo ko sant sant googu xéewal la bu la yàlla baaxee goo xam ne forcé nga santaat ko boo santee yàlla daf lay fay yool lu baax la lu baax loolu la yàlla baaxee ba nga def ko loolu da nga war a santaat yàlla sant googu nga santaat ci yàlla kon ci sant yàlla nga war a dëkk yàlla na yàlla def ñuy sant yàlla subhanahu wa taala dëgg-dëgg te mu jëriñ ñu ci alquran ji ñuy jàng fii yàlla nañu yàlla yërëm saxal ñu ci lu baax wa axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin